prix bi nga xam ne fayoon na ko ci Cheikh Ahmadou Bamba Dieng waa Marseille wàññi ko ñu xaatimal ko contrat ndax Nice kat jamono ji xelam dafa teey ci blessure Cheikh Ahmadou Bamba Dieng waaye kat waa Marseille ñoom dañoo lànk kandaare nee nañu li Nice fayoon mënuñu caa wàññi dara ndax blessure boobee nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Dieng am na ko dañ koy faj mu wér léegi sënu buy métti rek la te gone gi nag jamono jii ma ngay wëyal visite médical ya su lépp yembee nag juba kon ñaan leen ñu juboo waaye jamono ji daal prix ba waa Nice dañoo bëgg Marseille wàññi ko Marseille nee na nag moom wàññiwut ko blessure boobee bu ñu ko fajee mën naa wér kon jamono ji visite médical ba ñoo nga ca yàlla na lépp yemb nag Cheikh Ahmadou Bamba Dieng xaatim contrat ca Nice ndax ca Marseille moom amu fa temps de te gone gi kat daa war a football ndax xale la toog ci banc arrangé wu ko. ñu jugee ci Cheikh Ahmadou Bamba Dieng waaye Marseille googee duñu ko génn ka di tàggat di Tudor tey jii bi mu toogee ak taskatu xabaar yi di waajal match bi mu am suba digganteem la ak Auxerre Auxerre bu mbay ñaa ñooy football suba ak Marseille bu Pape Alassane Gueye ak Cheikh Ahmadou Dieng payet mii nag ngeen di gis du bokk suba ca match boobee ki ko dëggal moo di Tudor nee na dafa blessé pooj ba mooy métti kon ñoom suba trois heures bu jotee bu ñuy jàkkaarloo ak Auxerre seen capitaine bii di Payet du bokk ca match boobee ki ko xamle moo di Tudor mi nga xam ne mooy tàggat club boobee di Marseille ñu jugee ci waa Marseille ak Dimitri Payet dem ca waa Leeds United ñoom nag ginnaaw bi ñu lajjee ci mbiru Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ka ñu jënd moo di doomu Italie bii di Wilfried Gnonto moom nga woon ca Suisse club bu ñu naan Zurich foofee la nekkoon FC Zurich la gone gi nekkoon xaatimal nañu ko contrat wu juróomi at ca Premier League ba la doomu itali bi di doxal moom nag ci fàttali équipe national bu itali match yu mujj yi ñu am yëpp daan nañ ko woo mu leen di jàppale gone gi attaquant bu mën la muy def la ku footballub itali am ci moom yaakaar la muy will Wilfried Gnonto nekk attaquant xaatim na contrat ca Leeds United ginnaaw bi ñu lajjee ci mbiru Cheikh Ahmadou Bamba Dieng que ñu jënd moo di doomu Italie bii di ñëntoo officiel na la ñu ko jëndee mi ngi toll ci 4,5 millions d'euros ñu jugee ci ñëntoo jël doomu Écosse bii di Billy Gilmour moom nag ma nga woon ca Chelsea jamono jii nag jógee na fa fa mu dem moo di Brighton gone gi nag def na Chelsea ñetti saison jamono jii nag jógee na fa dem na ca Brighton la ñu ko jëndee mi ngi toll ci 10,5 millions d'euros loolee la ñu def ci doomu Écosse bi ngir mu dem ca Brighton jàppale waa